yàlla dimbali ñu chaque jour quart de finale la ñuy toogee ngir yàlla war rasuuli mi ngi teg bal bi ngir yàlla na ko dugal ay yàlla quart de finale sonn nañu sonn nañu ah? sarax ñu rek sarax ñu ngir yàlla ay yàlla suñu borom bu fi am oh, dama